dama am baat boo xam ne dama ko dégg dama koy bañ mooy boroom dëkk bi waaw ndax bu dëkk bi moom surga rek laa ci mën a doon waaw euh, ci jamono bi nga xam ne dañ ma dégg seen yëf bu bu ma nekkatee nag comme li jiitu woon loolu dama naan dama cee bokk yem ci loolu waaye fi toll moom surga Cees keese laay nangu doon boroom dëkk bi moom euh, du man dafa jaadu nag xëy na su fekkee ne am na tur wuñ la jox am na luñ la takkal bu gan amee ñun la yaa koy dalal ndax yaa jël seen écharpe laxasaayu ngir bu gan yi ñëwee nga di leen toppatoo ci cadre boobu maa leen war a dalal te maa ngi leen di dalal jàmm nag leen li ci des li ngeen di yëngatu dafa war a dox parce que bu doxul benn dëkk du dox. kon ku yabu ñaanal leen seen ngeen juboo benn ngeen di waxtaan di déggoo waaw wolof day wax ne tere mu të mu gis waaye benn kilifa dafa ne day fekk bu gisee du la woon kon léegi lu ñu di invité dañ ciy veillé ñun tam même bu fekkee ne nekkuñ ci biir kuréel bi dañoo bëgg mu dox parce que bu doxee ñépp a ko yëg. ndax ñépp xam nañu solo mbay te effort bu yiñ ciy def yépp bu ñu ko continué woon du ko dox suba ngoon guddi sax du tax mu doy kon yéen positionnement bi ngeen am ci biir dafa tax ñun ñépp ñu war leen ñaanal lii ngeen di liggéey mu tegu ci yoon bi ñu gën a nekk gone dafa am benn taalifkat boo xam ne da daan wax ne ba muy wax daan doole yi baykat yee taxoon muy wax dana wax ne daa daan doole yaa ngi suux ci réewum Sénégal mu ne ñoo daane suñu gaal bu ñu loroo duñu kaaya bu njàmbat doon faj tiis alkaane du doon lawtan nañu wéqu fippu joowandoo gaalu daan doole yi xiti nee na ñooy kenoy réew mi lee ñooy réew mi ñooy dundal koom-koom ñooy nawtal meññeef dundal weteñ ñun ñuy xiif suñu kiraay soxalu leen boo tëlee ñu seppi sànni takk nañu suñuy gët jóg dinu féewale ooy wekkoo jowandoo gaal gi fiti li nga xam ne moo am solo mooy nit ñi xam ne euh, sidditu mbañ la ñuy rawee buumi lëngoo waaw loolu la bëggoon a indi ndax loolu mu naan euh, bu njàmbat doon faj tiis alkaane du doon lawtan dafa am solo kon